jiital ci nuyoo bi le ministre Thierno Alassane Sall di nuyu docteur Pape Amadou Ndiaye di pare mu bi dina dalal ñi fi teew yëpp su ma demee dinaa jiw di nuyu groupement de femmes remercier aussi ci seen présence di sant aussi waa Grand Thiès kii nga nekk parce que tey jii mën naa ne su ma demee ba am tey jii doole wala fit pour taxaw di tugg ci politique wala may def ci mel nii ñoom ñoo war ci jàppale. Thank you. moom mooy bagage yi ngeen di gis nii tey au Québec. ku ne gis na effort bi président de la république di def pour dëkk bi set gis nañu UCG. Thiès climatul benn yoon mais dafa am lu sew yi nga xamante ne oto yi mënuñu faa dugg jigéen ñi jàmbaare yii ñoo fay nekk di ko nettoyé ba dëkk bi set de. kon ñooñu yaakaar naa ne lépp loo leen jàppale pour ñu setal dëkk bi rek. naa ko ko defal ndax bokkul fenn ci li may remercier docteur Pape Amadou Ndiaye ndax vraiment taxaw na ci bés bii jàppale na ma tey jii bu ma mënee taxawal bés bii dañ koy jàpp looloo tax koy remercier bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy spécial lépp lu taxawal fii ci Thiès Sadji loxoom mi ngi étaanul kenn ñu ngi jàppale surtout jigéen ñi dañu leen di jàppale maa ngi koy sant di ko gërëm di ko seedee ba Sall mii toog tey jii minha direita. É? dina teewaay comme fi toogee ba léegi kenn xiifatul gis ngeen ceeb ceeb ceeb ceeb taw li ak suukar ak lépp la wàññi kon yaakaar naa ne kooku askan bi kenn yëppiwu ko ñu dem ci àll bi kenn xiifatul kenn maratul mbay maa ngi fi jox leen ay machines yuy bay di leen financé pour ñu def machine deuxième mandat lépp lu ñu namoon fii ci réew mi dinañ ko am bu soobee yàlla. yéen waa Grand Thiès ñu ngi leen di nuyu tey am nañu kontaante bu rëy rëy rëy ndax ñëw nañu tey waa Grand Thiès sëñ bi tey dañu fekk mu taw tey mu am ay événement yu bari. waaye ñëpp bàyyi li ñu doon def ñëw toog loolu am na lu mu tey loolu am na loo xam ne am na signification tey jii dañoo ñëw fekk fii suñu rek suñu frère li ma ko yàgg di wax mooy koo xamante ne kees yëpp mooy ñu tey suñu place ci ministère muy monsieur Thierno Alassane Sall ñu ñëw leen fekk leen fi nga xam ne fa kii mooy Grand Thiès nga xamante ne muy may mun a seen mooy madame Wade mu Thierno Alassane Sall fii la ñu màggee fii la ñu ma ne nit ki soo xamul lu noo koy def ñoom tax ñëpp seen ñëpp seen nit yëpp bàyyi nañ ko ndax may mun a seen def noo wàññi. teraanga war leen kii kii leen ko moo tax tey ñëpp ñoo toog taxaw. lii muy def nii maanaam jàppale ay morom jigéenam tey nag du ne guleet ba financement yi jotee mënoon naa jël financement yi téye ko boppam tukkee ci delloo si tukkee ci kenn di wax dara ay morom koy def mais dafa jël financement yi delloowaat ko kenn ah ci góorgóorlu ñu ci ah am bés bu nekk wane góor te góor gi mooy lan kii ñu jëm muy 2017 kii am na élection damaa bëgg fii Grand Thiès ngeen am fi ndam loo xamante ne ñëpp ñëpp lañ koy wax. incha allah

suñu xarit suñu sœur même na seen nga xam ne moom moo waral gannaaw yàlla ñu daje fii tey nga xam ne même bu doon une heure du matin lay jeex dinañ fi toog gunge ko doon deux heures la jëm dinañ fi toog gunge ko nag di gàtt léegi ci ñu waral moo wax kàddu yooyu di nuyu suñu frère suñu grand

di ay kilifa ci biir Thiès di ay bu baax ñoo xam ne ñoo doon ànd démb wala tey donc ñuy naag ku ne ci turam santam encore une fois responsable bu fi toog responsable politique bu fi toog gis nañ la may mën a gis na la docteur gis na la man gis naa la ñoo ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di wax ni détail ji rek même bu leneen

te mun naa wax ku ci bëri lu parti bi joxe lu ñu responsable joxe lu mu lijjanti la car yu manqué diggante touché ku manqué car yu manqué ah, donc bu defee lii tey mun te bokk na ci ñu néew ñoo xam ne ku wootee waa affaire yëpp te témoins yoo xam ne dara du ci sos bi mooy ñu war a daje am na ñu ko ñu ngi jiitu bu noonu na lu mu boole kon lu mu ci jot ne man jotaguma ci dëgg kër wala kaat kaat wala leneen waaye daf ko delloo ci askan boole ko daf ko ak ay tame ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daw ci tabaski ak yi muy def donc woo na leen ci ku ci woo doomu aadama te fekkoon leen ci aussi te woo leen ci ñaax leen ci loolu mooy wane différence politique ñuy def ak bi fi woon bi fi woon dañ lay sonnoo t-shirt boo xam ne may mun a moo moo leen ci bind pour fësal boppam moom wala mu dajale ay quelques communicateurs pour fësal turam

mooy li nga wax léegi rek mooy ñun affaire jóguñu pour mit politique wu naxaateeg caaxaan ak koom mu jeex ba ñu dugg see ci Thiès mooy góor sa affaire yooyu dañ lay dugg donc dëgg ba ñu ñëwee Thiès dañu fexe ba

xam nañu ñoom ñoo sentirel seen bopp lu ñu bëggoon wax wax ko docteur Ndiaye nag woo na ma ci li may neex ci li ma sawar ndax benn benn dëkk bi ba ñuy ñëw 2011 dañu fekk ci situation boo xam ne courant bi dafa raaroon lool coupure yi bëri lool ba nga xam ne Dakar toog nañ fi ñetti fan yoo xam ne émeute la woon ñu ne ko ñu tuddee ko émeute de l'électricité am na wala amul tegeer tegeer yi di jaaxle ñu leen di njagawaat di marché ba nga xam ne dañ leen daan tëj jaaykat yëpp kuy jaay marchandise président bi jaaxle réaliser métal yeeg ak yooyu ñenn rek ñoo kontaan doon defar tey mooy ñu doon jaay groupe d' ak soxna ñooñu moom def naa ne alternance bi alterné nañu ñoom it seen métier dañu dugg ci yeneen métier waaye jaayatuñu yore donc. côté boobu mën naa ci dund tuuti as lëf rek wax. damaa nekk ci liggéey bi. gis nga ba ñuy ñëw. ba Abdoulaye Wade di ñëw ci nguur boobu dañu privatiser woon Sénélec. dañu privatiser woon Sénélec ndax Sénégal entièrement deux cent cinquante mégawatts moo fi newoon ci électricité deux cinquante mégawatts bi fi bàyyi privatiser nag Sénélec bu deux ah parce que tubaab yi jëndoon Sénélec dañu ne dañ leen nax ñu leen ñu woon mbir mi dañu a taaral jàpp ji rek kii ko mais ji daal ñu ñu ko fooge woon que ñoom ci seen wàllu bopp dañu banque seen i loxo bañ a investir

De janvier 2016 de décembre 2016 dinañ dugal de 250 mégas. tolloog li fi Abdoulaye Wade yokk 2000 à 2012 250 mégas. de janvier à décembre 2016 ndax Taïba Ndiaye gis en mars dernier président de la République inauguré pour 70 Mégas.

ak entre janvier 2016 décembre 2016 lay yokk 250 mégas waaye yemuñu foofu 2017 incha allah. il y a 250 mégas Parce que 135 millions d'euros, aiment, ou 135. Il y a un marché qui est en cours, signé le cours, dans le 2017, qui dit, Inch'Allah, 250 mégas. Oui, 2016, 2017, il y a un Sénégal, 500 mégas, pour y réparé nañ fi yeneen centrale yu yàqu ko defar nañ fi yeneen fiil yu xawoon a jagat moo tax tey jii nii muy xamal bi wàññeeku bu baax ci ci tënk encore bu fekkee ne dañu soxla 400 méga wala 500 tey jii nii ci waxtu bi ma lay wax nii 500 méga bu ñu la ñu

ñaari junni village de amoon courant du Sénégal Le ah, Sénégal nekkee Sénégal en 2012 lu tolloog ñaari junni Donc, daf 2012 ba tey jii may wax ak 1200 villages électrifiés Nous maanaam plus de 70 pour cent en 4 ans en 4 ans nous de 1000 près de 1200 villages électrifiés te incha allah programme boobu jeexagul di ngeen ci gis yeneen ak yeneen yuy ñëw. kees gii dinañu yeesal une partie du réseau électrique parce que xam nañu réseau électrique bi lu ci bëri dafa màggat. déggoo ngeen ay jamono waa fayu di doytu di jaxtu waaye am na luñ fa xaw a jot a laal ak ay Médina Fall ak yooyu mais lu gën a taxaw loolu gën a takku loolu dina ñëw lu Cees rek. Kayaar Diourbel Tivaouane Touba. yeneen dëkk dinañ ci dugg réseau bi ñu moderniser ko transport bi ñu moderniser ko keroog dama dem ci benn ville village am na ay seede ay journaliste ñu ngi ciy fekkee ay seede la ñu chef de village bi ne ñoom depuis cinquante ans dañu daan wut ay audience dugg fu nekk pour ñu defar leen électrification waaye ba seen village bañ koy électrifier demuñu fenn dañu xëy rek su fekk si leen nee leen yéen da ngeen di dañ leen di électrifier bokk ngeen si ñun ñu war a électrifier électricité bi ñëw ñu taal lampe mu fekkee

dëkk bi boobu Bukumaan la tudd mu ne ma couverture maladie universelle mu ngi fii maa ngi wax bu may dégg chef de village bi amaana parce que li may wax yëpp ci rajo la amaana mu dégg waaye am na ay journaliste yu nekk xàmme naa leen ñu ngi boor keroog donc ku la indil bourse de sécurité familiale ci sa village indi la électricité def ko tali Touba Toul boobu di dem Tivaouane indi ay machine indi la couverture maladie wa xam naa kooku soxlawul muy campagne électorale bu campagne bu élection jotee xanaa kay foofu fexe ba ñeneen yëg loolu ak milliards yi ñuy wax yi fan la jaar foofu la du dugul feneen donc mooy mun a lu taxoon démb ñu jóg ñun gëm ni ko war nañu wax ak waa Thiès

décision yu président def feneen bu leen wax ci PUDC forage yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir Sénégal bu leen wax ci gaz de santé yi li may daanelee mooy li ma tàmbale woon ne ci affaire sellal ak santé daan la bu ñu demee conseil des ministres décentralisé Tamba.

ku ne alalu Sénégal dugul ci askanu Sénégal yërëm askan wi delloo leen lu ñu moom fexe ba ñu gis seen bopp ci nguur gi kooku war nañu indil ay firnde loolu tax soow yi ñuy dégg ci rajo yi man dama ne bugguma ci sowuma ci topp ndax am na loo xam ne buñ ko waxee képp ku am

dafa ne pétrole bi dafa mel ni nga ne rek sama toolu maam a ngi nii wala sama dëkku maam a ngi nii wala Sénégal a ngi nii am na foo foo xam ne suul nañ fa samay maam suuloon nañ fa ngalam day xamuñu fan la te ci li nga wër ku wër di nga gis séeréer yi ñoom ak ak avant dañ daan jël ngalam gi suulaale ko seen kii comme gerte la jóg <laughs> ku wër rek loolu mooy di gas ci romb Sénégal di gas. boo mooy tudd daa dajeeg ngelaw waaye xam nga benn yàgg bi di wax wër mun nga nekk ay téeméeri at di wër loolu mooy pétrole bi pétrole bi kenn mënu la ne fii am na pétrole de manière sûre mu lekk moo tax depuis depuis Sénégal nekk Sénégal depuis 1935 ñoo ngi wër ci tubaab yi ba léegi ñoo ngi wër pétrole Sénégal mais comme xamuñu fu mu nekk amaana am na amaana amul. te ki ngay wër alal bu bëri la ciy def kooku est ce que yenu na maanaa nga ne daf lay fay pour ñu wër jën lu yenu maanaa kay nga ko jox naa la nga wër boo gisee ku séddoo boo gisul nga dem sa yoon waaye man comme d'accord nga pour wër du ma ci des sama dërëm foofu la ñu ak compagnie pétrolière yi ci gàttal maanaam xel nanguwul que ñoom dinañu joxe ay milliards. pour wër pétrole boo xam ne óor na leen seeni moroom jiitu nañ leen fi wër gis ñu dara dem ñeneen jiitu leen fi wër dellu dem ba am na ñu fa newoon delloo permis bi dem seen yoon loolu est-ce que xel nangu na bala ngay gis ne nga joxe ay milliards xel bu ma da ngay ne saawaay mënal dégg naa la ko am na nag ay frais yu ndaw yu ngay fay frais yooyu du dara luwee nañ leen surface yaa ngi fay par année 3000 xam nga ñaar par kilomètre carré dina fay bonus dina nga ci Petrosen ay données loolu la loolu du alal bu bëri. kon ak sax Petrosen ba tey c'est pas une société très florissante waaye bis boo trouvé la ci charte yii ak yii ak yii la ñuy nar a seetloo affaire bi. gannaaw yow ba nga defee gannaaw yow mi nga trouvé yow yaay gasteen wi. yooyu yaay tabax teen bi yaay def machines yi moom pétrole bi yooyu yaay def machines yi koy seeg ak yooyu yëpp après nag ñu doog a séddoo loolu xanaa loolu moo gën a dal xel gën a yeggu maanaam te koo xam ne day ñëw jeex xamul lu muy wër dina ko trouvé ñu naan jafe dafa ay milliards jafe na lii lu wër la fii day da wax kese la waaye naa ci dellu si lu gën a yàqu parce que bu fekkee ne nit ñi dañ lay woo ci xuloo kese yow nga yor caq du nii taxaw kii fi mu toll nii gars yi ñu ñëwoon avant en avant moom dañ koy rawale dem parce que su ko nii day xeex ak waxtu wax expliqué ñun tey waaw waaw voilà mais fi mu toll nii ñun ci liggéey la ñu toll comme béykat yu nekk ci kii bi loolu la président mel loolu la gouvernement bi mel ci liggéey la ñu nekk loolu tax dañ daan wax vacances gouvernementale gars yi dem. France Senghor moom version ngeen ko daan dégg Normandie un mois ferme dina ko jël def ko ko sax café yeneen gars yi tamit dañ daan jël seen avion dem vacances bu ñu ñëwaat leen aéroport du ma tudd seen tur waaye ñun vacances ci nawet dañuy ñëw ci koñ bi suñu koñ wàccaat yeeg askan bi saa foon nekk ñoom ñeeg nekku leen loolu moo ñu fi ñu woon tey di leen gërëm di gërëm encore une fois

doy de baax na non non baax na voilà jox ko jox ko. jox ko rek voilà mu ngoog. xaaral jëlee loolu c'est bon baax na waaw.